mbokk gal TV mbokku internet yi ñu ngi fi ci euh, sectoriel Adam di wa euh, di wajal nak euh, Saladam du 20 au 29 janvier waaye bala bobu dañuy dugg nak fële Saint-Louis du 19 au 26 décembre au Ares hein bu fa jógee nak du fin décembre ju dem fële ci ñaari tali ñom gaynde tay nak maa ngi taxaw ci bergerie bi nga xam moy bergerie bay Cheikh kilifa gi journal wa delloo ziar Cissé ndax maa ngi nuyu waa Samagal TV yëpp mhm. di ziar mbokk internet yi macha allah di ziar bu baax

soo exposé wu siis yëpp box bi su bëree xar rek du rafet. ah moo tax nga def fenk. waaw ok macha allah moo tax gis nañu aéré wéy. aéré waaw su day gën a day am visibilité. ba pare Pa tamit bu ñëwee ci box dafa war a feeñ. waaw soo defee xar yu bëri nag. waaw waaw waaw naa yow bi bi si ay stratège la xam nga <laughs> eh, nank rek. mais tey pamooñ nga ma ni indi ma ñaari femelle femelle cuur bi beekal la ah cuur bi moom aussi doomu Chicago la ok moom moo jur teer bi ok terre bi ah, yaayam la àndal attraction foire bi yaayam la àndal ok yaay ji sot Subeeru la ak Galactique macha allah waaw bi tamit beneen bi beneen bi tamit doomu Chicago la mooy tête bi tête nue bi moom Chicago la yaay ji sot César la uh-huh. beneen bi mooy bu noir bi doomu Major la. ok yaay ji mooy doomu Boy Polo bi Maram Mbaye. tey BBC de. waaw toj na ah, moom mooy moom mooy BBC de. non mooy këru BBC. waaw ah, macha allah Chicago yëngal bi ba pare nga ni ma teer bi fu mu toll si ñaata moom. mi ngi ci un mois dix jours tey. doomu capital doomu capital. le meilleur gars yi nee te le meilleur. waaw fils de Capital pour l'instant. meilleur mbote de l'année. Ah. de Capital. d'accord est-ce que yeneen doomu Capital yi nuur nañu ko nuur waaw am na doomu Capital yu yu garaaw yu nekk kër ga de. Ah. waaw mais moom exceptionnel la quoi. exceptionnel bi lan ko joxe yaa ji yaa ji la wala. yaa ji yaa ji joué na si. joué na Capital aussi tamit ok parce Capital du mbote cuune. bañ dalee élevé ba léegi moto yu judd suñu capital yi nekk doom capital ñu ah. ko gis macha allah loolu la euh, euh, euh, élevage noonu la da ngay nekk niveau bi day gën a yéeg chaque instant macha allah mm. Pa Mbodj le record poids ci ci ci national waaw avec 181 kilos nga indi laatal ma ko tey lan nga choisir bàyyi fa Pa Mbodj indi ma bàyyi fa capital indi ma Pa Mbodj c'est que du du loolu sax mais capital lañ bëggoon préparer pour mu ñëw. ok mais dernière affaire lañ changé. indi Pambouj indi Pambouj. ok te euh, Pambouj xaru foire la. moo tax ñu indi ko. moo tax ñu indi nit ñi nit ñi du duñ doyal ci Pambouj quoi. waaw te capital dafay liggéey. waaw capital instant yi mi ngi nekk di tëb xar te moom mooy kon liggéey bi ko que mu ngi liggéey mais. mais Pape Mboy instant instant mi ngi tëb mi ngi noppal mi ngi tëb mi ngi tëb tëb nii moom ni mel tere ko tëb day tëb instant bi am nay xar yu xaar doomu Pape foofu wala am na xar yoo xaar semaine ci biir foyer bi nii rek am na xar yu mu fa wàccee woon ah bon allah Pape mi ngi liggéey ah boobaak léegi poids am est-ce que Pape Mboy dérangé wu mi ngi liggéey normal dérangé wu ko benn est-ce que parfois doo sànni que ni Pape Mboy mi poids si weeru nekk sa maam maja ah bokk deret fu rëy la bokk moo tax lii ku xam xar dëgg soo xam ne kii lii déranger wu ko. kii suy ñibbi nii su yéeg day daw de. barke yàlla billaay day daw. booy loolu nag mu ko de. non day daw naa Paa di daw di yéeg escalier ko ñu xam ni il est moo moom li mu moom li mu moom li mu yor ko li mu moo ko moom. oh. day daw li mu wax lii daf ma neex quoi parce que am na ñu bëri ñoo xam ne il se pose question quoi. Pambooj ak poids est-ce que est-ce que est-ce que dina mën a gérer yooyu mais loolu euh, gëm naa ni parce que man ñëw naa fa. ñëw naa fa def nañ fi émission bu neex mais gis naa Pambooj ci boxam mu mu mu free mobile di def lu ko neex mais loolu kontaan naa ci mais booy teer bi teer bi gars yi ñu ngi ciy wax wala waxuñu ci. <laughs> waaw teer bi instant gars yi gars yi ñu ngi ciy sonal moom. ah ah gars yi ñu ngi ciy sonal ah mais teer bi teer bi dafa doy waar de. ah non xar la ndaaraan la. yàlla ko yàlla defal ca amiin mu dem ba ren di déwél moom incha allah mm. dina bokk ci xar yi ñuy coow de jeex na waaw ah. eh mais booy exposition bi rafet na. ah bi si defate ngeen film nii. waaw ñun kontaan ci yéen. Euh, keroog la ñuy dox macha allah. keroog ñu naa fa def émission euh, euh, kii bu rafet. yow maa yow réew kan lañu defal émission. maam Thierno. maam Thierno waaw ah, sama tonton boobu borom yaa bëgg càmm te te cool te <laughs> yaru te sympa te xoolal yow moom yow moom yow moom ni nga am ndam. <laughs> amiin kontaan naa ci yow Moustapha kontaan naa ci yow. adresse bi numéro bi. Euh, Petit Mbao. Mhm. deuxième porte. Mhm. numéro bi mën ngaa woote 77. 528 10 24. macha allah après soo jotul woo mën ngaa woote 77 549 05 83. allah ok rafet na. mbokk sama gaal gis nga tey maa ngi fii ci BBC euh, la agsi na euh, ci biir émission bi tey Moustapha laa doon waxtaanal mais Balla mhm. dugg si na te Balla. waxtaan naag mu saf ñu ngi lay mu wax ma ziar naa macha allah wax ma li waral exposition bi dëgg la ma kontaan ci trop dëgg la euh, tey yaa ngi nii noo gisee foire déjà waaw foire bi neex na mhm. organisation bi jaar na yoon gars yi jox nañ ko ak xam visiteurs ñëw nañ en masse macha allah te gis nañ ne yi vraiment niveau bi kawe na macha allah aa mais Balla bi merci beaucoup non ma ci gën a kontaan man dañ may woowe fu nekk donc euh, vraiment émission la bo xamné ne. njëriñ kese la macha allah njëriñ la. et puis et puis et puis Balla terre bi mhm. terre bi ni ko indi ndax ma neex. waaw terre bi ginnaaw papa ñewul. il a fait la foi. ma ne léegi moom non non non non wutu na papaam. dëgg waaw ma ngoog non wutu na papaam ah. papaam noo jeex na instant bi commencé na wàññi coowu papa ji quoi. dëgg <laughs> c'est ça Tay euh, tay euh, ñu ngi doon waxtan ci Pape Mbodj. moom moom nga indiwaat. effectivement déjà ya ngi ma fekk ma naan booy bi est-ce que Pape Mbodj. mi ngi mhm. mi ngi poowam mi ngi koy mi mi sonalu ko affaire yooyu. non ma ne ma. Mhm. nice. Pape Mbodj buy yéeg a ko wàcc sax moo yéegal ba am escalier bi. te buy jéeg day daw. macha allah waaw te vidéo bi naa la ko envoyé. incha allah très bien. d' la mais Balla. Mm-hmm. Euh, léegi euh, saladam. Mm-hmm. en janvier. incha allah ngay wax gars yi nu ñu waaw saladam janvier li may wax gars yi mooy na éleveurs yëpp àndandoo ñëw en masse. Mm-hmm. xam ne feetu élevage la. du Sénégal rek moo koy feete mais adduna bi yëpp bu saladam xew dañuy xam ne foire xew na. ndaxte Sénégal liggéey ci laadum bi dafa toll foo xam ne léegi kawe na macha allah. donc may woo éleveurs yëpp. Uh-huh. ñu tasee ndaw ñun ñëpp Saladam. Uh-huh. ku nekk indi say meilleurs sujets ñu fois ci jàmm ak salaam macha allah may jox gars yi rendez-vous Saladam ak production capitale incha ah, allah macha allah mhm. mais terre bi day dem wala dem non terre bi day dem moo jiite délégation bi loolu gars yi ñu ngi ñu ngi <laughs> waaw ñu ngi fay mais dama yaakaar maa leen gën a bëgg terre bi waaw maa leen gën a bëgg terre ah? waaw maa leen gën a bëgg yow xam nga passion moom bu nekkee ci éleveur <laughs> si si si ah, li ñëpp bëgg mais nag mhm. mais nag yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na en tout cas kontaan na merci beaucoup kontaan nañ euh, yaa ngi supporté équipe nationale waaw maa ngi supporté équipe nationale Sadio Mané ñu am euh, déception waaw euh, ah, mais lu suñu borom doon la uh-huh. mm, donc euh, ndogalu suñu borom kenn jaam mënuñ si dara dëgg la euh, sauf que doon nañ souhaité nag mu ñëw mais nañ dem ak li ñu am rek mais xëy na sax yàlla jaarale ko mun na nekk mën na nekk peut-être avec Sadio bu Sadio ñëwoon uh-huh. mën na demee neneen mais yàlla lu gën rek lay def macha allah merci beaucoup rafet na jaajëf